dañ ko soow wax jii du gudd président Macky Sall pour saxaar na ñeent wala juróomi yoo xam ne dawlu tey jii suñu borom def na ànd def maanaam le voyage inaugural loolu mooy lan mooy bu màggal desee ñetti fan saxaar si dana daw jóge Thiès ñëw Touba walla mu jógee jurbel ñëw Touba jóge Touba dellu Diourbel jóge Touba dellu Thiès di yëpp askan bi di leen jële di leen indi ñu ñëw màggal ñetti fan avant màggal bi dana ko daw bu màggal bi weesoo mu dawat ñetti fan après màggal pour delloo maanaam les pèlerins yi nga xam def déplacement bi pour ñu Touba donc président daf ñu santoon liggéey suñ borom def liggéey bi le directeur général des chemins de fer du Sénégal liggéey ka liggéey bu jaar yoon liggéey bu aw yoon ba tey ñu gis ni saxaar si dana tàmbaliwaat daw diggante gox yooyu nga xam ne tudd naa ko donc damay profiter di féliciter le directeur général ci liggéey bi nga xam ni def na ko te Touba étape la xam nga raay bi boo ñëwee ba Diourbel dafa am branche bu jógee Jurbel ñëw Touba beneen branche bu jógee Jurbel tàllal dem Kaolack wutu ji Tamba Tamba boo ñu nar yegg bu neex a yàlla fas nañ ci yegg fi leeg fin décembre bii di ñëw balaa at mi jeex ñu yegg Tamba bu neex a yàlla waaye lu ñuy jëkk def mooy train marchandise te daan ci liggéey train marchandise yu jógee Dakar ñëw Touba. comme ça commercant yi nga xam ni dañ doon jël ay camion di jët seen conteneur du ko ci jàpp du ko indi mu cher loolu ñu mën jël saxaar si marchandise mu jëlee leen si ay conteneur jëlee leen ko port port de Dakar indi ko fii ci Touba loolu dañ koy liggéey nu mu gënee gaaw après magal bi war naa mën a tàmbali avant ñu yem Tamba loolu incha allah rabi jox nañu instruction de directeur général de chemin de fer pour que loolu mën a tàmbali nu mu gënee gaaw bu ñu weesoo màggal ñëpp xam nañu saxaar koom-koom bu muy indi ci dëkk sëñ ko sax wax ko parce que dëkk yu bëri yu bëri c'est autour du rail la ñu formé woo te loolu da doon indi koom-koom askan bi di liggéey dëkk bi dox loolu la président Macky Sall dekkalaat le rail mu doxaat économie dëkk bi dox dëkk bu mu jaar économie bi doxaat loolu nag bu amee yaakaar naa ni ah askan bi ci boppam confiance bu ñu jox Macky Sall moo tax muy leen di liggéeyal dina indi saafara seen liggéey saafara soosu nag ginnaaw suñu borom dañuy gërëm bu baax le président Macky te xam nañu président Macky Sall maanaam taxawaay bu mu am ci Sénégal rawatina ak fii ci Touba président Macky indi na fi Ila Touba. autoroute jóge Dakar jaar Thiès egg si fii ci Touba saxaar si taxaw na lu yàgg dawul mi ngi ñëwoon nii di dawaat te gëm naa ni bu neexee yàlla ci lu ma yaakaar la TER bii nga xam ni la troisième phase dana dem ba Thiès man gëm naa ni la quatrième phase dana ex fii ci Touba muy un train électrique mën nañ ko boole ci perspective bi parce que président dafa am vision bonne vision la am mooy vision boo xam ne le Sénégal dañuy wax le Sénégal émergent ci wàllu développé wàllum infrastructure moo xam ne wàllum autoroute la waaye aussi moo xam ne wàllum rail la grand écartement mooy le écartement standard un train électrique à l'échelle nationale te loolu bokk na ci plan de développement de la politique ferroviaire à l'échelle nationale donc bu amee koo xam ni dafa bëgg développement Sénégal kooku dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal parce que président Macky Sall ku jar ñaan donc sëñ Koso dañoo bëgg yónnee ñaan ci xalif général di mën a sëñ Mountakha Sall président Macky Sall ci yéene yi nga xam ne amal na ko Sénégal suñu borom def yéene yooyu mottali ko parce que ban Sénégal la bëgg mooy Sénégal buy avancé mooy Sénégal buy développé mooy Sénégal boo xam ne liggéey am na fi ndaw yi ñu liggéey koom-koom bi di yokku Sénégal boobu raayu Sénégal boobu lañu ñu président Macky Sall teg te ci raayu boobu la ñuy nekk bu neexee yàlla.